waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa allamtanaa innaka anta al-aliimul hakiim subhaanaka laa fahma lanaa illaa maa fahamtanaa innaka anta al-jawaadul kariim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu chers frères en Dieu chers bien-aimés chers amis chers cheminants dans la voie d'Allah Nous avons encore le plaisir de vous compter parmi nous à l'occasion de ces rencontres quotidiennes, rencontres dans lesquelles on essaie d'étudier ensemble, de relire ensemble, ensemble le Saint-Coran et les enseignements du prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Euh, pour tous les frères qui nous suivent euh, depuis le jeudi passé, donc ça fait presque une semaine, nous avons entrepris une euh, étude, une relecture d'une notion très importante dans la vie des individus, mais aussi dans la vie de la collectivité, des collectivités. Euh, cette notion, c'est la notion de kilifa, euh, autorité, responsable, Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, on a fait le tour de cette notion. Et Alhamdulillah, on en a tiré beaucoup d'enseignements. hier, on avait commencé une causerie en français pour euh, penser à nos sœurs, nos frères, nos neveux, nos frères talibés qui sont partout et qui sont d'expression française, mashallah, malgré le décalage euh, au niveau linguistique euh, sont toujours avec nous, machallah. Souvent, on pense à eux et c'est pour cela qu'on fait des directs euh, en français pour euh, que aussi ils, ils sentent et ils savent qu'on ne les oublie pas. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va terminer le direct qu'on avait commencé hier sur la notion de kilifa. Euh, et Inch'Allah, après cela, nous allons vous donner l'opportunité de pouvoir appeler, hein, d'intervenir, de donner vos positions, vos remarques, vos idées, vos réflexions sur, sur, sur, sur cette notion de kilifa. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, on va terminer le direct d'hier euh, par cette euh, euh, philosophie, cet enseignement, cette orientation du Qutb al-Hadi Mohamed Degen, anhu. Il faut dire que l'importance de cet enseignement de al-Hadi Mohamed Degen, c'est qu'il y a, à côté de l'enseignement qui est une abstraction, des actes concrets qu'il a posés qui montrent il n'est pas ce capitaine qui dit aux troupes d'aller au front. Mais c'est lui qui est au, au devant des tirs des balles et des flèches. Donc, euh, Al-Hajj Mohamed Degen, quand on lui a demandé de nous expliquer, de nous expliciter, d'éclairer notre lanterne sur cette notion aussi importante que complexe qui est la notion de kilifa, de responsable, d'autorité. Il nous avait dit que le kilifa, le responsable, l'autorité, c'est celui qui fait, qui, qui ne dit pas ce qu'il Qui ne dit pas ce qu'il veut dire, mais il dit ce qu'il doit dire. C'est celui-là qui ne fait pas ce qu'il veut faire, mais qui fait ce qu'il doit faire. Il dit que c'est celui-là le responsable. Et Alhamdulillah, Rabbil Alamin, j'ai dit que là, cette euh, réflexion interpelle deux autres notions très importantes, la langue et le corps. C'est-à-dire que beaucoup de gens ont, de, ont des problèmes actuellement. Et qu'est-ce qui, qu qui, est euh, à l'origine de leurs problèmes C'est leur langue. Sayyidina Ali ibn Abi Talibin, Karamallahu wajhahu il a dit que l'homme a mille défauts. L'homme, l'être humain, il a mille défauts. Et il a dit que les 999 défauts sont concentrés au niveau de sa langue. Et l'unique défaut qui reste sur les mille est partagé par tout le corps. Chaque partie du corps prend une partie de cette, de cette unité de défauts. Et les 999 se regroupent, sont concentrés au niveau de la langue. Donc, quelqu'un peut être respecté, aimé, adulé, même euh, adoré. Mais il suffit de avec lui que tu un problème ou bien tu affaire à quelqu'un qui ne vaut de par leur silence. Quand on, si la parole est d'argent, le silence est d'or. Et beaucoup de questions, leur réponse, c'est le silence. Et jamais quelqu'un ne sera blâmé parce qu'il s'est tu quand le silence reste le seul moyen pour se sauver. À l'exception des savants ou bien des hommes, euh, des porteurs de, de, de voix, des leaders d'opinion, qui n'ont pas le droit à un certain moment de l'histoire, de se taire, ils doivent parler. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, la langue, cher frère, en regardant même la création, la, la, la, la, euh, la structure de la langue, on doit faire attention. La langue est tenue par des, euh, euh La langue, c'est, c'est le seul, euh, c'est le seul organe qui réside dans, un, dans une prison. Allah ne s'est pas euh, suffi de la mettre dans une prison. Il a cherché, il a créé 32 soldats, les dents, pour la retenir parce qu'elle est très dangereuse. Elle ne s'est pas arrêtée à cela. Et Allah, il ne s'est pas arrêté à cela. Il a cherché même des lèvres pour encore euh, retenir la langue. En plus de cela, il a mis à la disposition de la langue quelque chose qu'on appelle l'esprit, l'intellect, le discernement, la réflexion, la clameur publique. Tout cela, Allah l'a créé pour être des véritables freins, des véritables freins à la langue. Parce que chaque fois que l'homme se réveille de son lit et qu'il pose les pieds, ses pieds sur terre, tous les membres, tous les organes de son corps demandent protection auprès d'Allah contre, contre la langue. Et bizarrement, cher frère en Dieu, si quelqu'un tape quelqu'un, si quelqu'un donne un coup de tête à quelqu'un, si quelqu'un tue quelqu'un, si quelqu'un maltraite quelqu'un, la main ne dit jamais que je lui ai donné un coup. La tête ne dit jamais je lui ai de tête. Le pied ne, ne dit jamais je lui ai donné un coup de pied. C'est la langue qui se lève et dit c'est moi qui ai tapé, c'est moi qui ai fait. Et pourtant, il n'a rien fait. il est truffé, il est rempli de défauts. C'est pour cela que celui à qui Allah donne la chance de freiner sa langue, celui-là, il est sauvé. Et souvent, souvent, il y a une grande relation entre la langue et, le, et, le, et, les autres membres du corps et le corps en général. Qu'est-ce que je veux dire par là? En wolof, on dit nan ko def bu nekk nan ko wax moo ci jiitu. Donc toutes les mauvaises choses que vous pouvez entendre dans cette vie que vous pouvez voir dans cette vie, avant d'être matérialisé de manière factuelle, par des faits, ça a commencé par les langues. Hein? Même les guerres, ça commence par, des, par, par les journalistes, hmm? par les médias interposés, par les articles des savants, des philosophes, des gens de l'armée. des présidents, des, des, politiques, je veux dire. commence par cela. Et à un moment donné, la confrontation devient inéluctable, devient inévitable. Et ça, c'est très dangereux. C'est très grave. C'est pour cela que, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, celui que Allah veut sauver, il lui donne des freins pour sa langue. C'est dans Abu Bakr Siddiq, chaque matin, il se levait, il prenait 12 pierres, il mettait dans sa bouche pour montrer aux gens celui qui laisse sa langue prendre le dessus sur tous les membres, tous les organes de son corps, il va finir en enfer. C'est automatique. Donc, euh, euh, en regardant cela, on va se rendre compte de l'importance de freiner les langues. C'est pour cela même que le jour du jugement dernier, qui est le jour le plus important, la langue, la langue est reléguée au second plan. <laughs> la langue n'a plus de force. Ici sur Terre, c'est la langue qui dirige tout. Même dans nos pays-là, il suffit de bien parler, de bien de euh, savoir bien parler, et tu tout. Dans les autres pays, c'est la même chose. Les éloquents gagnent tout. Les gens éloquents, ils gagnent tout. Mais le jour du ju jugement dernier, Allah va destituer la langue. Il destituer la langue. Et il va donner la parole aux, vrais acteurs, c'est-à-dire les membres du corps, chers frères en Dieu. Allah il nous dit dans Sourate Yassine, Al Yawma, il, joue, il parle du juste du jugement dernier, Al Yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Le jour du jugement dernier, Allah va dire à la langue de cette terre et il va autoriser les autres membres du corps, les autres organes de s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'il sait que Moi, je ne sais pas les autres peuples, les autres nations et les autres civilisations, j'en connais pas beaucoup. Mais il m'est sûr que le jour du jugement dernier, s'il y a certains Sénégalais, si les anges leur donnent l'autorisation de parler, ils vont parler jusqu'à entrer à, au paradis, or ils devaient aller en enfer. Tellement le, les langues sont salées. <laughs> tellement ils savent parler, tellement ils savent manipuler les langues, ils savent manipuler les mots, tellement ils sont, ils sont, ils sont faux. Ça, c'est de la fausseté, Donc les grands hommes de Dieu, c'est les hommes dont les paroles ne sont pas en contradiction avec les, ce que les cœurs disent. Les grands hommes de Dieu, ce sont les hommes dont les paroles ne sont pas en contradiction avec leurs, leurs œuvres, leurs actions. Qu'Allah nous assiste. Donc, euh, parler de la langue, c'est parler du, du, du, corps, des actions. Donc, Allah Muhammad il dit le responsable, le kilifa, c'est celui-là qui ne dit pas ce qu'il veut dire, mais il dit ce qu'il doit dire. Le, la, le, deuxième axe, il dit que le kilifa, c'est celui qui, qui fait ce qu'il doit faire et ne fait pas ce qu'il veut faire. Qu'est-ce que cela veut dire Il y a beaucoup de, de gens qui ont perdu. Il y a des exemples ici en France. Un grand politicien, un grand économiste devait être en, à ce moment-là le président de la République française. Mais il a été euh, perdu par une petite soirée dans un hôtel. Il a été perdu par un petit passage dans un hôtel. Un petit acte, à tort ou à raison, Dieu seul sait. Mais c'est là qui a été la source de, son, de, so, de sa perte. Aux États-Unis, c'est la même chose. On se rappelle du, de, de, du Monica Gate, Au Sénégal, il y a des cas. Partout, il y a des cas. Donc les actes aussi peuvent être la source de, de, de l'ébranlement, de, de, la, de, la, de la démolition de tout un projet dans lequel on a mis sa force, ses réflexions, ses avoirs, son savoir, son pouvoir, sa famille. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là Faisons attention à tout ce que l'on fait. Un kilifa doit faire attention à tout ce qu'il fait, à tout ce qu'il dit, parce que l'histoire est là. Et maintenant, les péchés, les mauvaises actions sont presque éternelles, cher frères en Dieu. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit sont relayés. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit euh, est relayé dans les réseaux sociaux. Ça se retrouve sur YouTube. Et les gens multiplient les vidéos. démultiplie les vidéos pour que même soit, si toi qui avais mis la, la, la, la vidéo principale, si, si, la supprimes de, ton, euh, de ta page, mais la vidéo continue et restera jusqu'à la fin du monde. Donc faisons attention, à tout ce que l'on dit. Faisons attention à tout ce que l'on fait. Parce qu'on peut ne pas être kilife. Mais qui te dit que avant de mourir, Allah ne te ne t'élève pas et ne te donne pas un certain statut que ce soit dans le domaine religieux, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine politique, ou bien dans le domaine social. Seul, seul Dieu sait. Et plus profond même, qui te dit que peut-être toi, tu n'es rien, tu, tu, tu, tu n'as pas une certaine situation, mais tes enfants peuvent devenir des autorités, des kilifes, des imams, des, des muqaddam. Et socialement, ça peut poser problème, cher frère en Dieu. on peut dire, ah oui, oui, c'est oui, un grand homme. Ah oui, oui, il a ceci, il a ceci. Mais ah, euh, vous ne connaissez pas son père, vous ne connaissez pas sa maman. Nous, on a tendance à penser toujours aux parents. C'est pour cela que notre bien-aimé, le prophète Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, Allah a préservé son, sa dignité. Tous ses ancêtres, tous ses ancêtres, de Ismaïl à Adnan, de Adnan à Abdullahi, le père de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tous ses ancêtres ont été, ont été des gens pieux, des gens dignes qui n'ont pas eu de tâches. Sa mère Amina, radiallahu anha, c'est la même chose. Amina naqiyat an Amina était indemne, exempte de toute tâche, de toute sûre, de toute mauvaise parole. Allah l'a fait pour protéger le prophète. Sinon, si le prophète vient et il dit que euh, euh, <laughs> je suis l'envoyé de Dieu, on lui dit, mais avant de parler avec qui, euh, euh, avec quiconque, mais va parler avec ta maman. Va régler l'histoire de ta maman. Règle l'histoire de, de, ton papa. Donc nous aussi, on a ce devoir moral de préserver notre dignité et notre honneur pour nos enfants, chers frères en Dieu. Notre euh, euh, maître Sidna Aïssa alayhi salam, quand sa mère est revenue avec ce berceau-là ou, ou, ou, dans lequel il était. Mais la première chose qu'on lui a dit, mais on, tes parents n'ont jamais été des, des gens souillés. Tes parents n'ont commis aucune faute. Tu vois Vous voyez, cher frère, l'importance des parents, l'importance de la lignée, c'est important. Nous aussi, on a ce devoir, on a ce, cette obligation morale de laisser une une, une bonne page, une page euh, claire, nette, euh, sans souillure, sans rature, hein, sans la mention médiocre, pour que nos enfants soient dignes, soient fiers de nous et puissent euh, passer le flambeau à, aussi à eux, à, à leurs enfants. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, c'est ça, c'est la philosophie de l'Hajj Mohamed par rapport au kilifa. Donc, je crois que, comme l'a dit notre oncle Cheikh Abdelaziz Dia, euh, ces, ces causeries-là devraient être écoutées par tous ceux qui aspirent à des postes, à des stations euh, présidentielles, primaturales, euh, à des stations euh, ministérielles, à des euh, stations spirituelles, à des stations euh, d'ordre social, à des responsabilités dans les entreprises, dans, dans, dans tous les domaines de la vie. même les militaires, même les soldats, ils doivent penser à cela, chers frères en Dieu. Ils doivent réfléchir à ça, à ça, parce que rien, rien, rien ne vaut la crédibilité. Ah, ce qui est important dans la vie d'un responsable, d'un leader, d'un timonier, hein, d'un guide, c'est la crédibilité. La crédibilité, c'est très important. C'est pour cela que Cheikh Frère Dieu, hier, on a pris l'exemple de Cheikh Al-Hadi Mohamed Ndigal, qui, en 1977, a fait une intervention auprès de notre défunt président, le, le président Léopold Sédar Senghor. Après, après, il faut bien le souligner, maintes tentations de beaucoup d'autorités du Sénégal, que ce soit des autorités euh, euh, euh traditionnelles ou bien des autorités religieuses. Beaucoup ont fait la médiation et Senghor a refusé. C'était en 77. Il suffit de lire ce livre de Aminata Sofal, Les bouts de bois de pour comprendre la situation dans laquelle se trouvaient les cheminots euh, Sénégal, du Sénégal au Mali même, cher frère Dieu. Et quand les syndicalistes sont venus voir Al-Hajj Mohamed Degen pour qu'il intervention auprès de Senghor, euh, pour moi, le terme de kilifa, le terme de responsable, l'histoire de la rencontre de Al-Hajj Mohamed Dieguène avec Senghor suffit pour corroborer tout ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qui s'est passé? Al-Hajj Mohamed Dieguène a su que Senghor allait venir à Thiès. Il a demandé une audience pour le voir à la gouvernance, à l'actuelle gouvernance euh, de Thiès. Et quand il est parti le voir, euh, à l'entrée du bureau de Senghor, il a vu Senghor sourire. El Hadj Mohamed Ndiéguène lui aussi a souri. Et Senghor lui a dit, mais pourquoi vous avez souri, Serigne? El Hadj Mohamed Ndiéguène lui a dit, moi, je viens pour euh, te saluer, pour te rendre visite, mais aussi je vois, je viens pour une médiation, pour une sollicitation pour euh, des, des gens qui sont dans des difficultés. Et si je viens et la première chose que je vois euh, chez toi, c'est un sourire. Ça me, ça me donne un bon présage. Je, ça me donne beaucoup de, de, de, de courage et ça me donne beaucoup d'espoir. C'est le terme, d'espoir. Et Senghor lui a dit, euh, euh vous pouvez vous asseoir. Donc, euh, ils ont commencé à discuter. Et Al-Hajj Mohamed lui a dit, je viens pour faire une médiation, pour solliciter votre euh, euh indulgence par rapport à Euh, euh, la situation des cheminots du Sénégal. Et Senghor de se taire pendant quelque temps et il lui a dit, Senghor lui a dit, je ne sais pas quoi faire. Parce que depuis que je suis là, depuis que je suis président de la République, je n'ai jamais reçu, reçu une missive, une lettre une correspondance venant de toi. Jamais. Je n'ai jamais reçu une sollicitation venant de toi. Je n'ai jamais eu écho d'une quelconque demande que tu as faite par rapport à toi ou bien à ta famille. Tu es resté toujours dans ton coin, coin digne, comme euh, euh te l'a enseigné ton père. Parce qu'à Senghor, il maîtrisait l'histoire de tout le Sénégal. Et il lui a dit, je ne peux pas te refuser. Mais qu'est-ce que je vais faire Je vais pardonner. Je vais lever les sanctions sur la moitié de ces grévistes-là. El Hajj Mohamed Djiguen lui dit, regarde bien sa diplomatie. Il lui dit, Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie de, de m'avoir écouté, de m'avoir reçu, de m'avoir écouté. Mais je vous remercie aussi pour avoir accepté de rentrer même dans cette notion de pardon, de levée de, de, de, de, de sanctions. Mais je ne peux pas, je ne sais pas ce que je veux dire à la population tiessoise ou à la population des chemins de fer, qu'est-ce que je vais leur dire s'ils si voient qu'il y a seulement une moitié qui a été, euh, euh pardonnée. Et beaucoup peuvent dire même que j'ai choisi mes disciples et, et, et, mes amis et leurs fils euh, pour, pour que tu les pardonnes. Et les autres, je les, euh, euh je, euh, je, je les ai laissés, je les ai abandonnés. Haj Mohamed lui dit, euh, un kilife, quand il fait quelque chose, il les fait dans, la, dans, la, dans, dans, dans sa totalité. Et Senghor de lui dire, pour préserver maintenant l'autorité de l'État, je ne peux pas leur pardonner tous en une seule fois. Donc, il y a une vague que je vais pardonner, l'autre vague suivra. Ça, c'est la première chose. Suivez l'histoire, chers frères en Dieu. Suivez bien l'histoire. Après leur discussion, après leur, leur entrevue, Senghor lui a dit, je vous invite à venir manger avec moi. Parce qu'il était l'heure de manger. Et Al-Hadi Mohamed Degen, dans sa dignité, dans son honneur, dans, euh, plongé dans les vertus que son père lui a inculquées. Al-Hajj Mohamed lui a dit Merci, monsieur le président, mais je préfère retourner à la maison et manger avec ma famille et mes talibés. Parce que mon cœur ne peut pas supporter, mon cœur ne que je mange ces mets copieux est succulent, est bien fait, est bien servi. Ici, en laissant ma famille manger du mahal. Ça, je ne peux pas. Et la deuxième chose, Monsieur le Président, c'est que si je mange avec toi aujourd'hui, là, ton déjeuner là, demain, à la même heure, mon, mon ventre me réclamera le même la même, le même luxe, la même organisation. Et ça, je ne l'aurai pas. Et ça, ça peut induire un kilifa à des dérives. C'est le fait de voir quelque chose qu'on n'a pas. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont dans ces situations, ils font le tout pour avoir cela. Et ils sont prêts à tout. Et ça, c'est un grand piège du chétan. Et là, le président a compris qu'il est devant un grand responsable, un grand kilifa qui est digne qui est un vrai asset un vrai asset ku dëddu àdduna ngoog te àdduna jublu ko donc chers frères en Dieu qu'est-ce qu'on peut tirer comme qu'est-ce qu'on va tirer de cette rencontre entre Cheikh Senghor El Hadj Mohamed Ndiéguène la première leçon à tirer c'est quoi c'est la crédibilité Senghor lui a dit combien d'autorités combien de kilifa combien de responsables combien de gens sont venus me demander et j'ai refusé. Je ne peux pas vous refuser, Al-Hajj Mohamed Dien. Pourquoi Parce que c'est la première fois que vous me sollicitiez. Donc, Al-Hajj Mohamed Dien a porté le manteau de la crédibilité en allant voir le président. Donc, il a laissé le dunya aux gens du dunya. Il a laissé Al-Akhira aux gens du, de l'Akhira. Et il a choisi Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne finit jamais. La deuxième leçon à tirer, à comprendre de cette rencontre, c'est que Al-Hajj Mohamed Degen, radiallahu ta'ala anhu, euh, a montré, chers frères en Dieu, un grand respect pour les gens qui le suivent, pour sa famille et pour ses disciples et ses talibés. il y a beaucoup maintenant de responsables, de guides religieux, de chefs religieux, de maîtres spirituels qui n'ont aucun respect pour ceux qui les suivent. Ils les considèrent comme des sous-hommes. il ne respecte, il ne le respecte pas. Parce que s'il y avait le moindre respect, avant de dire ou bien de faire quelque chose, ils auraient pensé à eux. Beaucoup de gens souffrent dans leur maison, dans leur coin. Et qu'est-ce qui les fait souffrir C'est l'intervention de, de, de, leur, de, leur, guide, de leur maître, de leur euh, chef. C'est la phrase du chef, c'est l'acte du chef qui leur a mis la, la honte partout. et en tout lieu. Ils se cachent même, ils disent même pas. Ils disent même plus que celui-là, c'est mon père, ou bien c'est mon maître, ou bien c'est mon sérigne, ou bien c'est mon chef de parti, ou bien... Parce que dire ce nom, c'est faire, faire tomber une pluie de honte. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc ça, c'est très important. Le respect des gens qui sont avec toi pour la face de Dieu, pour la face d'Allah. Ils sont pas là parce que tu es beau. Ils sont pas là parce que tu as de l'argent. Ils sont pas là parce que tu parles bien. Ils sont là pour se rapprocher d'Allah, pour avoir des compagnons dans la voie d'Allah, dans la recherche d'Allah, dans la recherche de la clémence d'Allah, dans la recherche de la, de la miséricorde d'Allah, dans la recherche de la proximité d'avec le prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et pas autre chose. Donc les talibés ne sont pas des sous-hommes, Ils ne sont pas des, des, des, des, des, des, euh, des, des comment on les appelle encore, des, des, plantons, ils ne sont pas des, des, gens qu'on a embauchés. Du tout. Du tout. Du tout. Ce sont nos égaux, ce sont nos frères, dans la voie d'Allah, dans la recherche de la clémence divine. Ça, il faut le dire. Al-Hajj Mohamed a montré ça. La troisième chose à tirer, à souligner, chers frères en Dieu, c'est le fait d'avoir de la retenue. Parce que beaucoup de gens, si c'était les gens que je connais maintenant, il feraient tout, il feraient le tout pour avoir des photos. il feraient le tout pour avoir des clichés, des photos de, cette, de ce déjeuner-là avec le président de la République. Beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils... Ah, moi, je mange avec le président. Hein. Moi, je mange avec le ministre, un ministre tel. Moi, je joue au golf avec un... Mais ça, c'est quoi c'est quoi Ce qui est important, c'est d'être à la mosquée avec les musulmans, c'est d'être à la wazifa avec les talibés, c'est d'être au champ, c'est d'être au travail avec, avec, avec les hommes. C'est ça l'honneur d'un homme de Dieu. Mais pas le nombre d'adresses que tu as, le nombre de photos que tu as avec les, les politiciens, avec euh, euh ceux qui ont des, des élections, euh, euh, des, des, des, postes électifs, des, euh, des suffrages. Euh, qu'on qu qualifie même d'universels et qui ne le sont pas, des, des, des, pouvoirs limités dans le temps et dans l'espace. Hein, ça, ce n'est pas l'honneur d'un homme de Dieu. c'est aller à la mosquée, c'est prier avec les pauvres, c'est manger avec les pauvres, c'est être au service des hommes, c'est se partager avec eux tout ce que tu as et leur laisser tout ce qu'ils ont. C'est partager avec eux tout ce que tu as et leur laisser tout ce qu'ils ont. Le grand homme de Dieu, il est content quand il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a avec le prophète, il est content. Quand il a une rencontre avec Cheikh Tidjani, il est content. Quand il rencontre un savant de l'islam, il est content. Mais il y a des, il gens qu'on qualifie de, de chefs religieux, de ceci, de cela. Et ils ne sont contents que quand ils sont avec des autorités politiques. Et il suffit de voir leur, leur reportage. Ils ne parlent que de ça. Dans leur cérémonie, ils ne remercient que. Or, ceux qui ont fait ces événements, c'est les talibés, c'est les pauvres, c'est les cultivateurs. Qu'Allah nous aide et nous assiste par la baraka du prophète Mohammed. Donc, il faut de la retenue. Il faut de la retenue. Tout ça, c'est éphémère. Ce n'est rien. Ils vont tous mourir. Senghor, maintenant, sa tombe est attaquée par des rats. <laughs> c'est lui qui dirigeait tout le Sénégal, cher frère en Maintenant, il vit avec les rats, avec les vers. Abdou il est tombé, cher frère en Il peut plus signer au nom du Sénégal. C'est fini. il est tombé. Il ne peut plus signer au nom du Sénégal. Ah. Aucun pouvoir sur terre n'est éternel. faisons attention. Mm. Tous ces pouvoirs-là, tout, tout, ce qu'on peut entendre sur Terre, c'est éphémère. Mm. La vraie royauté revient à Allah. Donc, chers frères en Dieu, c'est l'histoire qu'on voulait partager avec vous, avec les enseignements qu'on qu peut tirer de cette rencontre de Cheikh Hajj Mohamed avec le président Léopold Sédar Senghor, qu'on appelle le président poète macha allah cela nous aide et nous assiste et nous donne la baraka de Alhaji Mohamed Dieng radiallahu anhu donc incha allah euh, ceux qui veulent intervenir peuvent appeler incha allah pour donner leur réflexion leur point de vue leurs recommandations euh, leurs idées sur euh, la notion de kilifa euh, qui a été définie par Alhaji Mohamed Dieng comme je l'ai dit kilifa c'est celui qui fait qui ne dit pas ce qu'il veut dire mais qui dit ce qu'il doit dire et qui ne fait pas ce qu'il veut faire mais qui fait ce qu'il doit faire euh, cher Randier euh, euh, c'était un plaisir de partager avec vous ces moments donc vous aussi partagez avec nous vos réflexions vos visions avec nous incha allah taala euh, en vous donnant le temps de vous connecter et d'appeler je vais vous raconter aussi une autre histoire d'un de nos cousins qui s'appelle Abdouval. C'est un ancien ministre du Sénégal. Un jour, il est venu voir son oncle Serigne Mounirou. Et quand son oncle était rentré dans la chambre de Mamaladi, il a dit que mon oncle là, c'est mon oncle, certes, mais c'est mon kilifa. C'est mon kilifa. je fais jamais quelque chose sans son aval, sans son point de vue. Tout ce qu'il me dit, je le fais parce que c'est mon kilifa. Il a dit quelque chose que j'ai retenu et je ne vais jamais l'oublier. Il a dit que en voyageant, on peut voir, hein, on peut voir un homme avec tout le respect que les hommes ont en eux et ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala hein, qui est au-dessus de la pyramide de la créature, on peut voir un homme qui est euh, dans un avion, euh, qui, euh, qui est au-devant de l'avion. Hmm? Je crois qu'on appelle ça, euh, hein? classe économique, c'est ça. Et à côté, on voit un chien qui passent à côté de nous, des hommes, pour aller en première classe. Hein? En priorité. <laughs> Cher frère en Dieu. Et Abdou, il a dit, notre cousin là, il a dit que ce n'est pas le chien qui s'est amené lui-même en classe, euh, en première classe. Il, a, il, a, il est passé devant des hommes. Mais c'est son maître. C'est grâce à son maître, cher frère en Dieu, Tu peux prendre un Ndiagandiaï pour voyager et, et voir à côté un chien qui voyage dans une limousine. Ce n'est pas le chien, c'est son kilifa. Et ça, c'est très, très, très important. Masha'Allah. Euh, qu'Allah nous aide et nous assiste. Donc, euh, vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, euh, participer en euh, appelant, Inch'Allah Ta'ala, et en donnant votre point de vue et votre, euh, vos réflexions par rapport à cette notion de kilifa. Comme je vous l'ai dit, euh, euh c'est euh, des échanges. Moi, j'aime bien l'interactivité, j'aime bien les échanges, j'aime bien, le, euh, comme disait l'autre euh, que j'ai cité tout à l'heure, le président Senghor qui parlait du rendez-vous du donner et du recevoir. Peut-être c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Donc, euh, Masha'Allah, euh, c'est pas seulement euh, Mor qui parle, c'est pas seulement l'autre qui parle, mais tout le monde a droit à la parole pour euh, échanger avec nous euh, sur euh, ces thèmes qu'Allah nous aide et nous par la baraka du prophète Mohammed Bismillah. Koko. Mhm. Hajj. sëriñ ñoo ngi ziar alhamdulilah waaw delloo ziar yow la ñëpp di déglu <laughs> macha allah waaw yow la ñëpp di déglu jógu bismillah ah alhamdulillah ah sëriñ ñoo ngi ñoo ngi ziar maa ci li ma la interrompre de ci li nga doon raconté léegi macha allah vraiment <laughs> ci notion de kilifa waaw vraiment mais kontaan nañ te euh, ah ñoo ngi lay jërëjëfal d'abord ndax yi moom yu jara yu jara xam la ak te définir la yu nit mooy définir. waaw euh, nit ñi dañ nit ñi dañuy def. Ndiogu mhm. bala ngay dem histoire boobu ma wax ci Abdou Fall mën nga ko tënkaat ci wolof bala ngay àggalee li ngay wax bala ngay wax importance su jotaay bi. Mhm. bismillah allez-y Ndiogou waaw Ndiogou dafa mel ni ah, xam naa ni connexion bi léeg-léeg mooy mooy xaw doy waar waaye ci wolof sànq mbokk sunu doomu bàjj la mooy le président Abdou Fall ancien ministre de la santé ancien président de l'assemblée euh, vice-président je dire donc euh, dafa bis foofu di waxtaan ak ñun nijaayam dugg ci biir mu ne ah man sama nijaay mooy sama kilifa ndax nit warul dund amul kilifa ñaak kilifa baaxul mu ne mu ne wax jooju dama koy jàpp ba yomal xiyam da dugg avion yow dem ci classe économique mooy fa ñëpp di dem mu ne nga ngay dugg ni duggandoog ab xaj xaj daal dem première classe a <laughs> ah? mu ne xaj bi yéegalul boobu foofu boppam kilifaam moo ko fa yéegal da tukki yéeg war war war car car wala ndag njagañaay nga gis koo xamante ni ab xaj boo xamante ni limousine la war mu ne loolu kilifa rek la am na foo xamante ne nit du fay àggee rek kilifa moo ko fa àggale yàlla nañu yàlla euh, defal euh, pas-pas boobu te may ñu may ñu cër boobu may ñu gis-gis boobu may ñu dégg-dégg boobu ba ñuy mën a am kilifa euh, ci bépp xaal bépp jamono ci fu ñu mënti nekk incha allahu taala loolu moo ñuy dimbali àdduna ak àllaaxira donc mbokk yi képp ku bëgg a dugg mën nga woote nga wax li nga xalaat ci wàllu kilifa ak euh, yiñ ci wax yëpp lan la ci nit ñi ban yan gis-gis ngeen ci am yan position ngeen ci am ak yan dégg-dégg ngeen ci am ngir euh, ñu gën a xam euh, lan mooy kilifa kan mooy kilifa nan la ñuy nekkee kilifa waaye njaboot tamit nan lay nekkee njaboot yan attitude la war a am ak tamit jamono ji ni mu waar nga xamante ni benn jëf ju ndaw wala benn wax ju ndaw mën na la yàqal sa life yëpp ah te yow xamu ëllëg looy doon mën nga nekk général de l'armée mën nga nekk sëriñ mën nga nekk muqaddam mën nga nekk euh, président de la république mën nga nekk xaw ma lan mën nga nekk soo ko nekkul tamit yow sa doom yi nga jur yàlla mën na leen ko def te tey jii am na loo xamante ni soo ko amee ci ay tâche ki takk-takk ah waxuma ne di nga xañ say doom de waaye di nga leen yàqal lu bëree bëree bëree bëri loo xamante ni du amul woon tey jii yàlla mën na leen dimbali ba ñu ba ñu bañu ñu ba ñu ba ñu mën a mucc ci yu bëree bëri bëri donc euh, képp koo xamante ni bëgg nga dugg incha allahu taala euh, may nañ leen mën ngeen a dugg wax seen wax seen xalaat wax seen gis-gis euh, incha allahu taala euh, waaw moo ngoog dafa am solo waaw am na benn benn benn kilifa gu ñuy wax sëñ Bay Jaxate wax na ko nee na am kilifay li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba <laughs> waaw am kilifa li am solo soo ko amee am nga solo soo ko amul amoo solo ku wéeruwul yomba ba max waaw wow waaw dafa am solo nit day am kilifa waaw te toujours tamit euh, damay wax mbokk yi ne leen kilifa wax naa ko ci marché daaw bi marche balaa ko wax wax jooju am na ñu bëri dafa des seen bopp ba tey waaw <laughs> man leen kilifa wax ji wax ji neex na nii ay kilifa ak am kilifa ak wax waxi kilifa waaye lu lu lu profond la lu doy waar la waaw lu profond la lu doy waar la man yombul xam nga kilifa mooy lan kilifa mooy ku lay tere loo bëgg ak di la digal loo bëggul allahu akbar <laughs> ndekete kilifa lii rek la ku lay tere loo bëggul ak di la digal ah maam salaamaaleykum <laughs> ñu ngi ziar waaw bismillah ndeysaan ñu lay ma ne yow yow xanaa xanaa kontaan nga nag maam waaw kontaan si sa doon tudd boobu ba tey waaw kontaan bu wér kontaan bu wér kay macha allah wax ci moom am na solo trop trop trop ah mu ngoog kon bismillah yow la ñëpp di déglu maam Alaaji Diouf Euh, surtout alxaaji Mbay Juuf mm. tabaarakallaahu nekkoon bras sunu mag Serigne Omar nekkoon tamit mbindaanu sëñ Muniru ndax moo daan indi yu baax ye sax nu aram doon defar chaque jour <laughs> rëkki démb rek mooy ngi kontaan ba yóga de naan ah, maam dafa baax maam moom su sama lépp la ndeysaan yooyu yëpp nag baax na yooyu yi la waxal yëpp baax na waaye bi ci gën a neex nag gën a mm. solo amal solo nit ñi nag mooy tuddee gin la tuddee maam alaaji <laughs> juufa ñoo ko <laughs> day ziare bu wér di rafetlu. kàddu waaw bisimilah yow la ñëpp di déglu bisimilah. am na solo trop maanaam ci wax ci wàllu kilifa. waaw rafetlu nañ kàddu yi te comme li ci euh, maam El Hadj Mouhamed wax rek daanaka loolu mooy lépp moo tënk lépp mooy wax li nga war a wax te def li nga war a def ak euh, maanaam li nga waxoon ci muñ yooyu yëpp daam lu ko tënk nag mooy muñ ndax euh, jotaay yu bëri am na nooy muñee wax ji rek doo wax erreur di nga mën a fekk sa say kàddu maanaam muñ gi daal moo ëpp mooy mooy doole ji daal moo lay accompagner pour nga mën a wax li nga war a wax ak di mën a def li nga war a def muñ gi foog nga am ko bu baax defe naa ni te muñ tamit jàpp naa ni cër la bu la yàlla di defal comme ni ko ni nga waxee ni sunu maam soxnaa mi jaar lim li nga ko laajoon li mu wax ci a Alaaji mooy que ni ku mën a muñ la. wallaahi daanaka mën a muñ googu moo ko may loolu moo ko may muy wax la mu war a wax. di def la mu war a. muñ gi nag defe naa ni cër lay doon cër cër ci yàlla muñ doonul loo xam ni du ñëpp la la ko yàlla di cërale. muñ ci moom defe naa du ñëpp la yàlla di cërale. day nag li ma doon laaj man maanaam mooy nan la nit di tàggatee boppam ba mën a muñ wax fa mu war a waxee maanaam mu leer ne jotaay bi ñëpp yow lañuy ñuy déglu nga mën a muñ wala nga am cër ci jotaay daal di mën a muñ cër bi jox ko sa. ku la ko gën a yeyoo la lañuy la ñuy wax maanaam ku nekk sa comme ni ma koy gisee kilifa yi kër gi di ko def rek maanaam nekk ci jotaay xam ni cër bi yëpp ñoo ko moom ñu jël ko seen rakk nekk fa ñu jox ko seen rakk. allahu akbar daanaka kër gi booy xool kilifa ya nga koy gis yëpp noonu la fu ñu dajeeg seen seen i rakk ci jotaay dañuy jël cër bi xam ne ñoo ko moom ba mu mat sëkk ñu jël ko jox ko seen rakk. allahu akbar boobu damay gis ni ñoom muñ nañ lool ndax tiim say taalibe jaay yëpp jàkkaarloo yow mbokk yi jàkkaarloo yow te daal di jël kàddu gi joxe ko daal di maanu toog ba ñaan lañ lay ñaan rek la ñuy xaar ci yow. maanaam <laughs> nga effacé wu <laughs> nga dëgg de nga dëgg de waaw ah, muñ muñ gu muñ la te nag la ma doon laaj mooy maanaam nan la nit ki ni muy ni ngay wax ni nga doon waxtaanee ci tarbiya sa ruux nan la nit ki di tarbiya boppam ba mën a am muñ googu noonu <laughs> foog nit ki am benn solution boo xam ne mën na fa jaar pour tarbiya boppam tarbiya ruuxam ba mën a am muñ mhm. muñ mhm. man pour loolu daal laa gis ci ni muñ gi boo ko amee dëgg dëgg dëgg dëgg mhm. waaw kilifa facilement di ko jot maanaam di nga mën a muñee fa nga xam ni kàddu ga yow yaa moom di nga mën a jëf geeg yëpp bi daal foofu la muñ muñ yow doonul loo xam ne dafa yomb du <laughs> dëgg wax nga dëgg de. dafa yomb nit ki mën na ne muñ muñ muñ yenn saa yi nga gis koo xam ne bu muñee rek c'est parce que xam munu ci dara. waaw ah, dafa sës. ñàkk pexe. ñàkk waaw <laughs> ah, waaw. Ah. mais lu mën a faj la du ko muñ dafay faj. déedéet. léegi nag li nga xam ne moom mooy muñ gi mooy maanaam nga leer na lii yow yow la nga muñ. <laughs> nag man problème mooy nan la nit di tarbiya xam ba am yëg-yëgu muñ googu ba mën a jëfee muñ gi à cent pour cent. Mm-hmm. question boobu su dee mën nga ma ci laalal pour ma am ci daal idée. <laughs> tarbiya sama ruux waaw waaw xam nga maam euh, jërëjëf Diouf yow moom euh, sun lay dégg rek dañuy kontaan ndax macha allah dégg ñu rafet rafet nga am keroog waxtaan nañu macha allah vraiment sama am tamit keroog lool la ma wax ne waaw maa laa ji day tabarkal la suñu waa ji léegi kilifa la waaw ndeysaan terme boobu sax la wax ma ne ko ah alhamdulilah kon Euh, donc euh, loolu ngay laaj c'est-à-dire que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. daf ñoo jàngal nañu euh, dafa wax ne al ilmu bit taallumi wal xilmu mhm. bit taxallumi wa sabru bit tasabburi yonent ben jàngal lool yonent nee na mhm. xam-xam kenn du xëy am ko da ngay jàng par tuuti di for tuuti di xam di réere di laaj di gëstu di jàng ba xëy nekk borom xam-xam te doo amee xam-xam sax ba pare sax dutee ci ngay comprendre sax ne ndekete yow li nga réere moo ëpp li nga xam su ko defee modestie dugg d' accord mhm. mu ne tamit alxelmu bi taxallum mu ne kenn xëyul lewet mhm. kenn xëyut lewet mu ne da ngay lewet lewetlu di ñot di lewet di xëcc lewet di xool ñi lewet di roy ñi lewet ba mujj nooy nepp lewet te doo ko yëg sax te soo demee ba yëg ne lewet nga sax nga xeeb ko xam ni euh, lewet loo ci am doyul Mm-hmm. parce que lewet mooy bunt bi gën a gaaw ci yóbbu nit aljanna d' accord bi mu mujjee nag mu ne wa sabru bit tasabburi mu ne muñ dafa am ñaari façon moom laa wax keroog ne dafa am ñoo xamante ne dañoom am ay prédisposition mm-hmm. comme yonent yi ak wolu yàlla yi ñooñu dañuy judduwaale ay doole yoo xamante ni mënuñoo bokk ak yeneen doomu aadama yi li ñuy mën a antan li ñuy mën a euh, euh, supporter keneen ku ko jéem benn fan nga koy def dee ndax xol bi moo ko dul antan xam nga wax naa keroog exemple man leen euh, li ñu am na benn baleine bu ñuy wax baleen à bosse suy judd rek une tonne cinq cent lay peser su génnee ci ndeyam rek une tonne cinq cent lay peser <laughs> euh, euh, bis bu nekk moo ngi màgg quarante kilos quarante kilogrammes lay màgg kooku doo bëggee xëccoog moom pois sëñ bi rey nga sa ndax moom daf koo judduwaale waaw kay loolu laay bëgg a wax bon léegi Euh, noonu la noonu la demee tam am ay ay animaux yoo xamante ni mais euh, du seen yaram sax moo toll noonu mais li ñuy consommer la li ñuy lekk la dañuy lekk di lekk di lekk ba toll noonu ñu toll gis nga exemple boobu ma la jox mooy exemple bi am ci nitu yàlla yi ak nit ñi ak doomu aadama yi bokkuñu am na ñoo xamante ni dañuy judduwaale muñ ci seen biir xol dañuy am ay capacité de muñ seen biir xol léegi nag ñooñu yonent yi la ak wali yàlla yi léegi nag mu des ñun ñi nga xamante ni nag loolu peut-être juddiwaale ñu ko ñooñu nag euh, ñoo war a nag euh, góorgóorlu def yitte def yitte bu baax yitte bi moo ngi tàmbalee ci euh, par exemple nga am kilifa mooy li waxoon sànq kilifa mooy nga seet royuwaay bu mat royuwaay exemple bi ma lay mën a jox te mu gën baax gën a mat gën a rafet mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamante ni nee na lépp lu yàlla tek ay yonent ci nattu doo ko boolee cent vingt quatre mille yëpp seen nattu yàlla def ko benn nattu teg ko ko moom Seydina Muhammad wax na ni ñi ëpp nattu ci mbindeef yi mooy yonent yi ña ca topp mooy euh, wëlu yàlla yi ña ca topp mooy jullit yi mu ne kenn ku ci nekk nag yàlla ngi lay nattu selon sa ngëm yàlla ni mu toll gis nga loolu soo ko xamee da ngay jël ku mel ni bi def ko sa référence histoire yi nga xamante ni yëpp yëpp yëpp yëpp jaar na ci àddunaam ci ay mbiram ci digganteem ak boppam ci digganteem ak ay mbokkam ci digganteem ak ay kilifaam ci digganteem ak ay ay laa bëgg wax ay baayam ak i euh, baay tëxam ñooñu laa bëgg a wax ci digganteem ak yéefaru màkka yi ci digganteem ak yeneen buur yi nattu yi ko yàlla teg ci ay njabootam njabootam yëpp faatu nga xamante ne wàccul benn doomam ku dul Fatima ci ginnaawam dégg nga sëtam yi ni leen rayee nga dem ba ci saxaabaam yi Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar jaan jaakoore Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali ñoom ñëpp nga xam ne leen assassiné nga wàcc ba ci Alxasan Alxuseyn ñu assassiné leen nga wàcc ba ci nitu yàlla yi ñoom ñëpp par un imaamu Malik histoire am nga dégg fitna yan ko teg mais yi ngay dajale ba wàcc ba ci Cheikh na Ahmad Tijani nga xamante ni lu nekk ci fitna daj na ko lu nekk fitna ci fitna dal na ba mu wàcc ba ci sunu sëriñ Cheikh Alxaaji Omar Al Fouti nga xamante ni addunaam yëpp yëpp yëpp yëpp daf ko souffrir addunaam yëpp daf ko sonn wallahi addunaam yëpp daf ko souffrir li ñu rey ci ay doomam kenn xamul ni toll li ñu rey ci ay njabootam kenn xamul ni mu mu souffrir léppam nekk ci diggante di bindi téere di sikartur yàlla ba noppi di euh, di di di di bindi téere di sikartur yàlla di jihaad mm-hmm. bindi téere sikartur yàlla di jihaad boole ko jaamu yàllaam ak jàngaleem te lii yëpp teewul mu dox li mu war a dox dox mission ba nga wàcc ko ba ci euh, sunu maam alxaaji ahmad baro saalum nga mu jóge fitna ya mu dajeel coono ya dajeel ba ci alaaji muhammad jigéen lépp li mu daj ngir taxawal l'islam fii ci Thiès ak ñi nga xamante ni yaa ngi dund ak ñoom te mu te yow xam nga li wax bu baax ndax jege nga la ñuy daj ci ay coono ak i fitna ak i euh, diis diis ci seen xol diis diis ci seen yaram mais yii moom ngay jël dajale ko def ko nag sa li ñuy wax ci tubaab tableau de bord foo toll di ko xool foo toll di ko gis foo toll di ko bàyyi xel nga xamante ni heure boo demee ba war a bàyyeeku rek ba war a dox ne ah non c'est plus la peine euh, jaratu ko adduna bi nangam adduna bi nangam soo jëlee ci kenn ci ñii ma tudd sooy xoolaat tuuti une seconde ci dundam rek daal di amaat essence amaat force amaat énergie boo xamante ni dalay wan ne la ndekete yoo nattu yi la yàlla teg mooy lan da ngaa bokk ci yàlla bëggal boppam ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ida ahaba allahu abdan ibtalaahu li yasmaa tadarruahu yàlla ku mu bëgg moom yàlla subhanahu wa taala da lay teg ay nattu man su ma la bëggee sa jabar du la bëggee day seet plat bi la neex mu koy toggal sa sa xarit du la bëggee day jël day seet chemise bi la neex mu jëndal la ko ngir nga kontaan moom yàlla nag c'est le contraire yàlla du lu mu jël ci ay nattoo ki métit yow la koy sotti su ko defee nag ci ngay xamee ni loolu sii ñu mbëggeelu yàlla la sii cofeelu yàlla la sii ñu xéewalu yàlla la nga jàppee ko noonu xam ni Euh, euh, mbir soo bëggee xam dooleem ak darajaam ak cërëm da ngay xool fayam wala nga xool conséquence su jëf ya gis nga da ngay gis am na jëf yoo xamante ni dan lay wax ne loo ko defee yàlla dina la dumaan yi dina la toroxale nii dina la def nii ci ngay xamee dangerosité jëf jooju waaye tamit léeg-léeg fayub jëf fayub ni muy réyee dina la wan jëf ja ni mu amee solo wax naa la ne la jaamu yàlla boo gis am na limite ci fay gi ko yàlla di fay ba mu des muñ yàlla nee na muñkat yi ñoom compteur illimité lañ am kon nag soo tegee sa bët ci exemple nit yàlla yii coono yeneen yàlla teg nga teg sa bët ci euh, fay gële yàlla di fay ci doo muñee incha allahu taala nga koy def par ndànk di muñ par benn di muñ par benn di muñ par lenn di muñ par lenn di muñ par benn da ngay dem ba mujj muñ nekk sa jikko nekk sa xol nekk sa ruuxu nekk sa jëmm nekk sa lépp comme ni ma ko junjee muñ nag ñett la muñ gu njëkk gi mooy muñ bañ a def bàkkaar muñ gi ci topp mooy muñ jaamu yàlla muñ gi ci topp nag muñ muñ muñ ay nattu ñetti muñ yi soo ko dajalee nag yaa ngi ci dëggi dëggi muñ mooy xaqiqatu sabr xaqiqatu sabr nag soo ci xësee ba àgg yàlla nee na innama yuwaffa saabiruna ajrahum bi xeyri xisaabin képp ku nekk ci maqaama muñ gi nag jeex na yow sa tuyaaba moom illimité la soo deeyee sax day continuer sa compteur tuyaaba di di donc loolu lañ ci mën a tënk euh, euh, maam alaaji bismillah am na solo macha allah jël lañ ci wax maanaam ci ut ci exemple yooyu wax doy nañu ci ñu xool rek maanaam xool bi ñuy xool ci yéen seen muñ yi moo tax sax mu mën a souligner lool. ndeysaan. lu ci mel ni Cheikh Omar nga xam ne moom lañ dëkkal bis toog nañ ba ci yàgg nit ñi am ñi ci ñëw di wax ak mu ne su ma xamoon ki nga xam ne daf may teg ay nattu sax damay dem hmm. gën ko jigéen nga xam ne foofu laay jot kër bi. waaw <laughs> ah, ma ngoog <laughs> lay indil ay fitnaat ki lay teg yu fit yu métti su ma xamoon kan la damay dem gën hmm. ko neexal. muy te loolu noonu martaba la buy ñëwaat ci sa kaw. yokkute la wallaahi waaw dëgg la dëgg la. damay jàpp moom mu la koy wax waaye damay jàpp ni indirectement la du waxam du moom mais wax ni la soo gisee keneen ku nekk sa wet di la def ay. safar ko hmm. jàngale boo xam ne gisoon nañ ko ci waxtaan wi wax ci Seydina Muhammad ba ko. noonu boo daan jël ay mbalit di ko def ci buntu këram mu dem ba gisatu ko mu dem seeti ko ñu ni daa feebal mu nu ko yow li ma daan def yëpp ci tooñ. tey nga yëg dama feebar nga jël sa tànk ñëw seet si moom maanaam noonu loolu moo ko dugal ci wàllu lislaam mooy nit ki bool gis ku lay tegi safaan ak ay nga mën ko muñ boo ko muñee rek incha allah bés dana ñëw mu deñ mais nag dama yaakaar ne loolu ay cër la suñu borom la koy may mais comme ni nga waxee nag bàyyi xel maanaam suñu kilifa yeeg exemple bu ñuy gis ci ñoom ñu bàyyi bàyyi leen xel. Mm-hmm. dinañu ñu def ko comme genre comme tableau bool bi nga wax souvent bu ñu demee ba nga xam ne wàllu jigéen nañu sës sax. ñu xool ci loolu. wallaahi wallaahi. xam nga xam nga lu tax ma wax la loolu xam nga ñun sunu sang mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko wax lu doy waar. yàlla def ko wax ne ko. Mm-hmm. wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nuthabitu mm-hmm. fu aadaka aaya bu daw yaram la wallahi yàlla nee na yonent bi dinaa la li histoire yonent yi jiitu woon mel ni yonent bi daf ko wax ne ko mais man yónni nga ma sama lépp mat na lo loolu lan mooy njariñu nga nga nga nga may dégg nettali la histoire yu yonent yoo xamante ni ay junni junni at lañ ñëw ci sama ginnaaw mu ne ko mm-hmm. maanu sabbitu bihi fu aadaka dama la koy nettali ngir nga féexale ko sa xol nga dalale ko sa xol dégg nga waa léegi man dama mm-hmm. posé benn question ma ne bu dee yonent bi dafa soxla histoire yu dalal xolam kan moo soxlawul histoire bu dalal sa xol kenn ñëpp ko soxla ñëpp ko soxla ko soxla loolu nitu yàlla yu bari suñ leen laajee lan mooy gàmmu lan mooy tegtalu gàmmu ci alquran gàmmu foofu lañ koy wéeree dan naan loolu mooy seen dalil yalla dafa wax yonent bi dinaa la nettali histoire yonent yi jiitu woon kon nag ñun julliti tamit ñu jël bisu yonent bi bis bi mu juddoo def ko symbole di ci nettali histoire yonent bi ngir julliti tamit mën ciy féexale seen xol ndax jullit kenn du féexal xolam dara du féexal xolam lu dul fàttaliku sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu nga kon euh, loolu noonu mooy mooy yoon wi gën a gaaw ci euh, ci ci ci ci jàng muñ ci ci ci na sa bopp ci muñ euh, parce que tarbiya tarbiya muñ loolu kese la parce que ay wax la yoo xamante ni mën nañ la ko wax fii ba le cinq doo ko dégg waaye nag soo dajee góor yàlla nga gis lañ koy teg di ko ko wax di ko ko jiiñ di ko ko def te yow nga nekk ak moom di fanaan ak moom di yendoo moom di gisee ak moom xam ni liñ koy waxal yëpp dara amu ca ci ngay xamee ni ne ndekete yoon waa ngi nii te du tax mu rey kenn du tax mu dóor kenn du tax mu toroxal kenn kon exemple bangook yàlla nañu yàlla boole eh, dimbali boole ñu jàppale adduna ak àllaaxira bi jaay sidna Muhammadin salaa salaam bismillah maam ok jërëjëf kontaan nañ bu baax nag ci participer incha allah waaw amul benn problème dañuy dañuy a motiver daal ci gën a orienté ci orientation bi nga xam ni bëgg nañ ca teg suñu bopp incha allahu taala incha allahu taala incha allah yàlla yàlla xool gën na yàlla yàlla kontaan maam nag bul bul di gëj nag yow moom waaw <laughs> ah, moo ngoog incha allah <laughs> yàlla ñu yàlla boole ñu yëpp incha allah. macha allah jërëjëf Diouf jërëjëf Diouf jërëjëf Diouf. ñu waa Londres yëpp incha allah waaw <laughs> kay kon mbokk yi dégg ngeen intervention. bu kawee bu foor bu am solo boobu nga xamante ni sunu mbokk mi euh, def depuis Londres macha allah nga xamante ni du rate benn ci jotaay yi Alaaji Diouf du rate benn ci jotaay yi euh, tabarakallahu mook sunu mbokkee nekk foofu Londres yëpp soxna aji Marème ak jëkkëram ak njaboot ga euh, alhamdulilahi rabbil alamin dégg ngeen waxtaan bu am solo bi mu def dégg ngeen intervention bu rëy bi mu def dégg ngeen euh, question bu rëy bi mu posé euh, waaye tamit dégg ngeen euh, essai de réponse bi ñu joxe ngir rek ñun ñëpp ñu bokk barkeelu ci notion de muñ waaye tamit ubbi na beneen bunt boo xamante ni incha allahu taala du ñu yàlla dinañu xoolaat bu baax nan la ñuy def ba ba tabarakallahu xoolaat ko mooy tarbiya Euh, yar éducation spirituelle bu jëm ci wàllu muñ waaw nga xamante ni ubbi naa tamit foofu ay bunt yu bëri wax leen ay moyen ak ay yoon yoo xamante ni suñ ci jaaree borom bi tabaraka wa taala ci yërmandeem mën nañoo dimbali ba ñu mën a muñ ndax muñ tamit ah ni mu ko waxee dëgg la euh, <laughs> maam li mu wax dëgg la <laughs> muñ euh, cër la waaye cër bi mooy ñi ko moom wax naa ko waaye cër bi lu mu lu mu lu mu lu lu ko lu ko gars yi moom moom mooy yonent yi ak wëlu yàlla yi ñun ñi nga xamante ne ay am lañ tamit ñun it ñi nga xamante ni bokkuñu ci cër bu rëy boobu tamit am na cër boo xamante ni yàlla sédd nañu ca mooy lan góorgóorlu ak jéem a roy ñooñu gis nga ñooñu soo gisee yàlla may leen lum ñu mayul jox leen lum ñu joxul wan leen lum ñu wanul di ñu antan lu ñu antanul ñun mais dafa bëgg ñun ñu branché wu ci ñoom <laughs> ñu branché wu ci ñoom loolu kese la wax naa leen ko fii bés ma ne leen euh, imaamul Busayri radiyallahu anhu dafa wax ne yàlla su naree texeel aw ñooñ kenn la cay texeel fi mu ne ni yàlla du bëggee sauver aw nit kenn rek la ciy sauver kenn waaw avion lu mu rëy rëy rëy rëy rëy rëy benn commandant lay am dina am nag ay co ay copilote waaye benn commandant lay am oto lu mu rëy rëy benn nit a koy dawal sunu train yi lu mu rëy rëy benn nit a koy dawal te pourtant ñëpp incha allah du leen yàlla dimbale dinañ àgg fan jëm loolu li ma bëgg a wax foofu mooy ñëpp mënuñoo nekk di jiite ñëpp mënuñoo nekk ay président ñëpp mënuñoo nekk Serigne maa ngi dégg bis Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si moo yox loolu mu ne ah suñu réew mi toj na réew mi tas na ñu ne ko lu tax mu ne parti politique yi ñoo ëpp militant yi waaye Serigne si ñoo ëpp taalibe yi <laughs> hmm? nga xam ne kon kilifa bareetul kilifa yombatul nee na parti politique yi ñoo ëpp militant yi loolu loolu garaawul xool suñu réew mi ñun mat 14 millions la ñu xaw ma quinze millions ñu bëgg am 80 candidats. à la présidentielle quatre-vingts candidats nga xam ni kon ya une crise d'autorité bu rëy mooy tey jii kenn ku ci nekk jàpp nga ni mat nga kilifa te xam nga ni sëñ bi am na ñoo xamante ne dañuy fo yow bala ngaa jiite réew ma dangay jiite sa bopp yow sa bopp mënoo koo jiite yow mënoo lijjantigoo say pulsion ak say tentation ay say say bëgg-bëgg lijjantigoo say say faiblesse yow yow pareegoo ci sa bopp yow jàngagoo pareegoo man ah, sànq rek am na ku ma ci déglu ab candidat mais faute yi mu def faute yi yi mu def mais ma ne mais kii nee na dafa bëgg a senegal il faut ñu xoolaat affaire yi sëñ bi candidat candidat candidat à la présidentielle loolu du caaxaan sëñ Cheikh nee na sëñ Cheikh nee na sëriñ si ñoo ëpp taalibe yi parti politique yi ñoo ëpp militant yi sëñ bi loolu c'est très quatre-vingts candidats pour quatorze millions te France gii amuñu sax six candidats Amérique gii nga xamante ni cinquante états la deux candidats lay am mais sëñ bi nañu waxante dëgg <laughs> nañu waxante dëgg nañu waxante dëgg yëf gars yi niñ ko bëgg a jàppee du noonu nañu waxante dëgg niñ ko bëgg a jàppee du noonu waaw il faut ñu respecté ñu <laughs> il faut que ñu respecté ñu <laughs> dafa mel noonu la mel ci côté sëriñ bi léegi koo gis mu jug ni sëriñ la loo gis mu jug ni sëriñ la moom laay wax gars yi léeg-léeg man leen sëriñ bu bees fan la am sëriñ kañ sëriñ la rek ay dégg naan sëriñ bu bees bi sëriñ bu bees bi sëriñ bu bees fan la am sëriñ sëriñ rek la mu xees ak mu ñuul ak mu gàtt ak mu ñaaw ci am sëriñ la mais sëriñ bu bees amul yow léeg-léeg da ngay dem tukki rek ñetti weer ñëwaat fekk benn ay mu takk kaalaam naan naan day joxe ay laar ak i sunguf ne day dugg xalwa da ngay tourner léegi ñetti fan nga gis kenn koo xamante ne bii loolu taxaw di perturber ci koñ bi xëy léegi daal ne léegi moom dafa yor partem parti boo xamante ne yow yow di xoolal xool déglu baax li ma leen wax gis nga ñoom ñooñu noonu billahi laa la wax seen parti seen doom yi sax bokkuñ ci <laughs> looloo ci neex seen parti yooyu noonu parti seen doom yi sax bokkuñu seen doom yi ñu jur ci seen biir ak seen i ndigg bokkuñu seen parti xamuñu sax parti bi nu mu tudd loolu laajee sa parti pap bi nu mu tudd daan la waaye mooy lanati sax baa mooy xaw ma lan regroupement xaw ma lan wala rassemble xamuñu sax seen turu parti papa waaye sëñ bi sëñ bi sëñ bi nag yow sa parti bu njëkk sax parti yu njëkk yi danaan ah parti bi kat famille kase la mais léegi yow parti yi sax du famille say famille say njaboot say doom ci boppam bokkuñu dañ waxante dëgg sëñ bi ça c'est très grave xaw ma lu garaaw moo tax fu jëm xam te loolu mooy wane nit ñu <laughs> respecté wuñ ñu waa Sénégal mais sëñ xam nga lu loolu mooy matuñu kilifa mooy terme bi parce que fi ne ni jàpp nañu ne affaire bi motard la affaire bi lan la motard affaire u protocole affaire u passeport diplomatique affaire u doole affaire u nguur loolu lañ ko jàppee moo tax ñëpp fëx di ci daw mel ni euh, barsa wala Barsaax du loolu dos la sacerdoce la sacerdoce la responsabilité la du dangay ngay wax li la neex du def du da def li la neex su ëllëgee yàlla dina la ko laaj su ëllëgee yàlla dina la ko laaj su ëllëgee di nga di nga tontu la tusaluna yawma izin ani naim ñun ñi dañuy def une de temps pour dem Dakar Thiès yow nga koy def quinze minutes ñu arrêté euh, euh, wàcce ñëpp ci tali bi sëñ bi jël gendarme yi jël policiers yi jël motards yi jël renseignements généraux yi jël sunu gémini gémien yi jël force spéciale yi jël euh, sécurité intérieure jël sécurité nationale ñëpp ngir rek da nga war a jógee Dakar dem Thiès ñu daj dëkk bi yëpp ñëpp jóg mais sëñ bi loolu loolu sëñ bi euh, lii wane ni moom moo ko mooy doo nekkatul président dootoo ko am doo nekkatul ministre dootoo ko kon loolu charge la c'est une c'est une responsabilité dañuy wax ne gis nga gis nga gis nga taklif ak tashrif bokkul te dañ ne mbiru cër cër boo gis ci àdduna cër boo gis zahir ba moom mooy tashrif waaye baatin ba taklif la waaye nag loolu ñëpp de waaw zahir ba mooy tashrif waaye baatin ba taklif la loolu mooy lan zahir ba mooy ndam yi mooy sukk mooy nuyoo yi mooy motaar yi mooy facilité yi mooy téléphone yi loo wax mu dagg foo bëgg dem dem soo bëggee jóg jóg koo bëgg dimbali dimbali ko waaye ca biir su ëllëgee amul xiyaam billahi dërëm bun la jox cër buñ la jox doole jun la jox wallahi di nga rendre compte ci kanamu yàlla waaw bu dee ab sëriñ la c'est la chose nit ñi toog ci kaw gay toog ci suuf di xaaxtandi ko di leen tuuf li ñuy ñuy diwoo loo wax ñu ne noonu sooy toog ño sooy toog ak ñoom lu ñu am jox la ko lu ñu yor jox la ko lu ñu xam wax la ko foo toogeek ñoom du ñuy lekk ndawal fa mu gën a rafetee ñu jox la ko xar mu ñu yar indi la ko nga naan ahan rek di xaddamti ko billahi ba yomal xiyaam ba nga dajeeg yàlla doole jooju yàlla daf la ko jox ngir nga sukkaat ci kanamam wanaat ko ne ko man jaam laa comme sa jaam yi sa jaam yii dañoo dañ yow la ñuy wër ci man nga wan leen ñëpp ñoom ñëpp yàlla dimbali leen digal leen tere leen ay tey jii ñu bari waxatuñ seen taalibe yi dara taalibe bu ci am xaalis kenn doot la wax dara taalibe bu ci am xaalis ken doot la sëriñ su tàng yëpp seen tàngoor bi yëpp taalibe yi amul xaalis la mais taalibe yi am xaalis kenn du leen gëdd ken du leen waar kenn du leen wax lu naqari kenn du leen def lu naqari fa ñuy gisanteeg sëriñ sax duñ fa nekk même gàmmu yeeg xew-xew yeeg màggal yeeg xew yëpp am na fu ñuy gisanteeg ñoom jëflanteeg ñoom léegi nag wax yu tàng yeeg ak safara yeeg euh, jahannama yi taalibe yi nga xamante ne ñoom 1000 francs la ñuy joxe ak di sukk lañ koy jox bon seen xewal yu baax yi da ngay sax ci xew yi xew diine yi dañ koy gis ci xew diine yi mais michu yi duñ ko jox taalibe yi taalibe yi ñëw ngir jëm yàlla jógee ci àll bi du leen ko jox de taalibe yi am xaalis lañ koy jox taalibe yi sol jesner lañ koy jox mais da gis koo xamante ni moo ngi jógee dëkk ba dëkk ñëw ngir ziar si la ngir jëm yàlla ñu yendal ko fa nga gis koo xamante ni dafa fanaanee njaalo maa la ko wax nekk ci ay jigéen yu ñum takkul di fo di caaxaan ba dix heures jot mu mu fanaan ca loolu nelaw ba dix heures onze heures jug sangu ba set <laughs> jël xaalisam def ci poosam woo téléphone woo bëkk néeg bi ne maa ngi ci yoon wi <laughs> su fekkoon sëñ bi nelaw di nelaw sax dañ koy yee mu jóg su fekkoon sëñ bi di nelaw dañ koy yee mu jog te danaan ko sëñ diw la wala diwee ñëw xam na ñu yu ñëwee wàcc fa xaalis ñu wàcc taalibe yee fa yee jóg ngir jëm yàlla wacc leen fa dem recevoir ko wax ak moom mu yendu fa luy lekk ñu tegal ko ko luy naan ñu tegal ko ko bëkk néegi daw ci ginnaawam ndax dix mille yam leen di jox cinq mille yem leen di jox sëñ bi lii kilifa kilifa yombul de <laughs> gars yi dañuy coow rek dañuy coow rek waaw moo tax wala dimbali yàlla ñu yàlla boole dimbali moo tax toujours euh, euh, li ma leen di wax daal prenez vos responsabilités ah jël seen responsabilité ci seen ci seen diine ubbi seen i bët di xool di déglu waaw ormal ñëpp nag jox ñëpp cër waaye nag ku wéet ak sa bàmmeel loolu soo ko xamee da ngay da ngay noppalu détails yu bëri da nga ciy génn am na am na yu bëri dootoo nangu ko la ci dugal sëñ bi waaye ñoo ngi lijjanti seen i business de ñoo ngi lijjanti seen bopp de yow nag doo fi nekkee di dof doflu sëñ bi dañuy jaar sa kaw yàq yàq sa àdduna yàq sa àllaaxira yàq sa diggante sa borom doo ci mën dara xaaj Ndiogu daa mel dellu si nga. waaw. sëriñ maa ngi ziar. maa ngi jégalu waaw yow la ñëpp di déglu bisimilah. alhamdulilah ah maa ngi maa ngi jégalu. ñu vraiment jotaay bi ndax li ma doon wax sànq xam naa daa fekk tënk gu ci wolof. Euh, mooy waxtaan bi dafa dafa li ñu naan dafa ñëw en son temps ndax nit ñi ñu ngi def amalgam yu bare bare bare bare bare ci affaire kilifa kilifa diine wala kilifa parfois nga dégg sax benn su euh, benn rappeur bu naan man kilifa diine la alors ah mi ngoog muy muy yëf yi doy waar. donc muy donc. waaw ah, mais euh, euh, baal ma Ndiogou parce que mm-hmm. il faut que ñuy réfléchir te yeewu. xam nga soo gisee ab rappeur. wala fokat wala musicien wala waxkat. Mm. wala caaxaankat. di mhm. solu comme nitu diine xam nga gesneer yi imaam yi di sol ak sëriñ si moom la ñuy sol ñaw yi ñuy sol moom la ñuy sol ñooñu koy dàqale sax léeg-léeg waaye li la bëgg wax mooy soo déggee ñuy wax ñoom profane yooyu saay-saay soosu ñu taxawee naan man mhm. kilifa diine la te nekk ci beneen zone loolu mooy wane ni kon mhm. la ñuy def mooy bu dee rap la wala musique la wala am pecc la mooy seen diine il faut faire très attention à leur parole ay ah. piège piège yu graaw ci ci maçonnique ci ci euh, fra wala franc def ci bopp il faut faire très attention avec leurs paroles ñoom diine seen diine mooy rap seen diine mooy musique seen diine mooy fecc kon yow mhm. foo taxawee ne laa ilaha illallah mooy diine ñoom même bu dee dañuy wax laa ilaha en principe ci seen biir xol lañ jàpp mooy la ñuy def mooy mooy dëggi dëggi diine. dëgg la demal. dëgg la dëgg la alhamdulilah ah macha allah man de lii comprendre ma ko woon. Ah waaye nag c'est des termes à bien à bien comprendre ndax chaque fois. Ah sa waxtaan da ñuy donc day leen dégg day leen déglu benn gémmiñ ngeen am ñaari nopp mooy ça veut li ngeen war a déglu moo ëpp li ngeen war a wax waaw donc mi ngoog loolu moom waxaatal loolu waay tout le temps tout dama jàngal toujours nii dañuy wax toujours ni day leen mhm. déglu pourquoi parce que benn gémmiñ ngeen am am ñaari nopp loolu li muy signifier mooy li nga war a déglu moo ëpp li ngay wax donc loolu moom macha allah dañ ci <laughs> loolu moom tànk yooyu nga ñu teg macha allah moo tax it rëccu wuñ ko toujours moo tax nit bu waxee mën nañ toog di wax ak nit pendant une heure ñu toog di ko déglu muy wax rek mais après da ngay xam ni daal jële jël nga lu bari donc loolu muy sant yàlla ko wér loolu rek day waneen tamit kilifa tamit mooy lépp euh, ndax kilif ko amul kilifa euh, seytaane mooy doon sa kilifa donc loolu mooy mooy mooy mooy yëf yi donc yàlla na yàlla suturaal yàlla na yàlla sàmm suñu kilifa yu baax yi nga xam ne ñu ngi fi euh, yàlla leen yàlla gën taxaw di jàppale aussi di di di ziare suñu xalif euh, Serigne Mouhamadul Mounir di ñaan yàlla yàlla gën koo yàggal taxawaay bi ndax kilifa la boo xam ni vraiment euh, doy na waar il faut que mu gudd fan yàlla na gudd fan. ndax li ma gën a marqué récemment dama damaa ñëwoon foofu saalu fekk mu toog ñuy waxtaan ñuy waxtaan ma toog ba ci yàgg rek gis ay booli ginaar yi ñëw. te man yàlla seereet na boobu maa ngi demoon côté Mbour 3 sama xel nekk ci jaar ko daal di dem. Hmm. ma jaar fa toog tuuti ñuy waxtaan rek. ma toog ci yàgg rek ay booli ginaar ñëw sama kanam ñu toog ñu ak moom ñuy ñuy ñuy ñuy barkeelu ñun ñaar ci ci ci ci baaxaay xam naa bëgg ma defarul rek moo tax <laughs> mu wax ma loolu donc euh, mais dafa ba ci yàgg mu ni ma mbóoj mbóoj la may wax mu ni ma mbóoj ma ne ko waaw njegéen mu ni ma ku siis rek dof nga loolu la mu wax ku rek dof nga mhm. mu ni ma foo jóge ma ne ko maa ngi jóge mbu trois mu ma bi nga fay jóge xamoon nga di kii mu ma déedéet mu ni ma ku siis rek dof nga lii la mu wax <laughs> mu ni ma lu nit am da ko war a bokk ak ñëpp ku ci tombé rek nga xam ni koo koy cëram ñu toogaat ba ci yàgg ñuy toog mm. mag moom maa ngi toog di ko déglu rek toog di ko toog di waxtaan di waxtaan ba ci yàgg mu ni tekk benn instant ñu toog di ma toog di mu ma mbóoj ma ne ko waaw mu ni ma euh, àdduna lu mënti xew na ngay wax lu baax di def lu baax loo mën a mer mer gémmiñ gi fexeel ba soo koy tijji mm, lu mm. baax rek di génn loolu mu ni parce que loolu mooy defar lépp wallaahi ñaari at gis loolu la ma wax te daf maa marqué marqué marqué wallaahi nga xam ni daal euh, am kilifa bu mat kilifa fi mu doon xam fi mu doon te xam tamit ay ay jàngale yu sew ndax yëfi tari rek mais ay jàngale yu sew ci ay cours instant yu simple mu defar sa àdduna ci loo xam ni man ñaari yooyu dam boobu dama koy doxee di ko waxee wallaahi lu mënti xew nga def lu mhm. baax wax lu baax te tamit ku si dof nga. moo tax ba mu jógee it dafa xool Facebook jël photom boobu par hasard tombé ci photom bi rek publier ko daal ci bind wax ji wallaahi donc nga xam ni kilifa kilifa ki am kilifa mooy lépp. te tamit maa ngi doon maa ngi doon déglu sa wax euh, semaine bi rek maa ngi déglu waxtaan ba nga defoon ci pense 2010 xam nga 2011. ci kilifa bu mhm. baax ni mu amee solo ci nit. mu ne kilifa war nga fexe ba sooy tànn war nga tànn ba war nga fexe ba booy tànn kilifa maa ngi koy déglu bii rek yàggul. si si kilifa gu baax ni mu amee solo nga ni war nga fexe ba booy tànn kilifa na den tànn kilifa boo xam dafa teg benn tànkam ci alxuraan teg ko ci sunna ci sa kilifa mooy déterminer li ngay doon yow sa fonk bi ngay fonk sa yonent bi sa kilifa mooy déterminer loolu sol bi ngay sol sax sa kilifa moo koy sa wax ji ngay wax sax sa kilifa moo koy déterminer respecté bi ngay respecté sa wéju say kilifa mooy déterminer lépp mu ni parce que àdduna euh, foo dem àdduna yi foo dem ñii yenn dëkk yi Euh, euh, groupe islamique yi mooy jamayaat islamique yi ñoom ñoo yor diine ci foofu noonu nga dem beneen dëkk am benn ministère des affaires religieuses nga dem beneen dëkk am ñeneen mu ni mais nga ni woon mais boo yi kilifa gi ñi koy mooy kilifa kër kër diine yi ñoom ñoo yor kii ñoom la yàlla teg kilifa kilifteefu diine ji fii ci Sénégal mooy nag war nga fexe nag mhm. booy tànn kilifa nga tànn kilifa goo xam ni kilifa ku teg tànkam ci alxuraan ak sunna noonu la loolu mooy tax doo doo déraper ci dara waxtaan bu bu doy waar la xam naa du ñàkk tamit ma ma partagé ko mbokk yi ndax loolu. ça vient ah, en son heure il faut mettre le lien donc <laughs> il faut mettre le lien. waay incha allah incha mais daal mi ngi noonu mooy li nga wax ni kilifa day wax lu mu war a wax euh, ni kilifa daal mooy ki wax ki nga xam ni day def li mu war a def wax li mu war a wax te wax moom mooy lépp di wax wax dafa doy waar làmmeñ sànq yaa ngi euh, li tax li tax làmmiñ doy waar mooy dafa am 32 dents yu ci yu ci nekk ci kanam 32 soldats yàlla daf ko njëkk a yeewu sax daf koy yeewu ba noppi. Hmm? daf koy daf ko njëkk a yeewu waaw soo ko wutal 32 dents waaw. 32 dents bu pare mu jël xel intellect raison lépp euh, la la la lépp ñëw takkee ko takkee ko ko dañ ko takkee donc nga xam ni kon. Euh, lépp loo xam ni dem na ba làmmiñ bi di tijjeeku loolu lépp barrage yooyu yëpp di di di war na fexe ba noot ba ba loolu nekk lu baax. parce que euh, parce que làmmiñ parce que parce que làmmiñ mooy li nga xam ni mooy wax euh, mooy wax le passé mooy wax li lu lu weesu mooy wax tamit lu ñëwagul làmmiñ moom rek moo mën a wax loolu mooy wax tamit lu feeñ mooy wax tamit lu nëbb lu ñëpp nëbb moo xam naa loolu ñàkk mm-hmm. nga defal ñu fi jotaay sëñ bi loolu lu doy waar la mooy euh, nit tamit dañ boo seetlu nit tamit mën na tëdd tëdd di wax nit tamit <laughs> mën na di nelaw di wax. di wax wax nga dëgg. voilà mën na toog di wax mën na tamit nelaw. loolu lépp kon euh, euh, nit kon daal nit man li ma ci jàngee mooy nit am làmmiñam ba lépp lu muy wax rek na nekk lu rafet. ba képp ku la fekk nga tëdd di nelaw mu toog sa wet bàyyil fekk la ngay wax di di wax di wax di wax conscient ndax boobu nelaw nga bàyyeeku nga ba nga xam ni lépp luy génn sa làmmiñ rek day nekk lu rafet mën nañ ko enregistré tegal la ko donc loolu mais loolu li li koy waral nag mooy ànd kilifa gu mat kilifa ba nga xam ne moom mooy tarbiya sa xel tarbiya sa ruuf tarbiya sa lépp ba nga xam ne doo xalaat lu lu baax lu baax rek ngay xalaat donc loolu mooy tax booy nelaw tamit booy tamit di boo yeewoo tamit buñ la tegal di nga xam ne lu baax rek ngay wax luñ la mën luñ la mënti tegal wax nga dëgg de am na ñuy nelaw di dagg saaga de wax wax nga dëgg de wax nga dëgg de. bëri na yaa ngi yaa ngi yëngal yu garaaw. <laughs> ah. ñun si si si non xam nga dama defoon waxtaan. waxtaan bu yàgg yaakaar naa war nga am audio bi. parce que fii laa ko defoon. Euh, mhm. grande mosquée je sais pas ndax enregistré woon nañ ko war a déet. boobu dama doon wax la force de l'ouïe. ak sàmm déglu dégg. ak relation bi mu am ak xol. da nga naan enregistré ah. wuñu ko. waaw mais mais ah. léegi mm-hmm. léegi ni ñuy mm-hmm. def mooy dañ koy programme ma waxtaan ci dégg ak ak dégg ni mu amee solo làmmiñ tey wax naa ci mais mën nañ koo gën a approfondir. ci ci làmmiñ waaw parce que làmmiñ dafa graw doo demee ba découvrir sax capteurs yi ci yàlla def. Mm-hmm. capteurs yi yi nga xamante ni mooy tax ngay xam lu saf suukar ak lu saf kaaneeg lu tàng lu sedd ak glandes salivaires yi nekk ci biir. non mais am na ay sew sew yu garaaw a yu nekk ci làmmiñ ak ni ko yàlla mooy les papiers gustatifs la mooy les papiers gustatifs mooy tomb tomb yu nekk ci làmmiñ bi te mu nekk ay comme genre euh, toq mhm. bi loolu moom incha allah moom ah, kooku nañ ko <laughs> allah waaw ah. parce que lii moom nañ ko préparé làmmiñ moom xam naa ni sëñ bi loolu moom ah waaw moo tax tamit ñun dañ lay dañ lay sant sëriñ bi vraiment di la gën a ñaanal di la gën a di gën a di gën a gën a sant daal vraiment ndax ku santul nit tamit doo sant sa borom te lépp euh, njub boo gis aussi euh, jàppal diw mi ngi li nga koy wax ñun mënuñu woon dara xamuñu woon dara sànq rek bi may sànq maa ngi koy maa sànq laa ci bàyyi xel bi ma bi ma dama xale yi ñoo doon football ci buntu kër yi ma toog di filmer mais li may filmer maa ngi seetaan mais li ma doon wax sax xaw ma ko woon ndekete man ni ma paree ba di ko dégluwaat ci lay xam ne ndekete maa ngi doon zikkar alhamdulilah bi yàlla sédd na ko mais <laughs> c'est c'est c'est automatique mooy parce que <laughs> mais loolu tamit lépp ci yow la wallaay lépp yaa ngi ko yaa yaa ko dimbale vraiment yaa ñu ko dimbalee bu xale yi dañ kar di def tout laa ilaaha illallaah tout inshallah dañ ko mën di enregistrer rek di ko publier comme am na lu kii mais lii li ñëpp di def mën nañ ko def waaye nag ah am naa du ñàkk bu jotee rek loolu tamit ñu def ko incha allah mais nag ñoo ngi ciy sant bu baax ndax ndax yaa ngi ñoo ngi doon dégg sa waxtaan benn nga ni woon euh, mm. Seydina Omar doon na wax yonent bi ni ko ndax ndax suñu làmmiñ yi ndax ndax ndax lépp lu ñu wax dañu koy mbugal. waaw waaw waaw ko mu ne waay njóogu jërëjëf waay waaw waaw xam nga xam nga tamit ni làmmiñ tamit lépp lu ci wax ah day loolu kay xam ngeen ni lu waay def tamit teewul da koy da koy waxaat Seydina Omar nee na ca boobu ca laa dégg ci waxtaan bi nga ni ca la jël fukk fukki xeer ak ñaar. waaw bu ko génnee rek lekk la wala wax ko. nga ni nga ni mm. woon xeer ak ñaar yooyu noonu. daanaka moom mooy laa ilaha illallah kon Seydina Omar. waaw saa yu musaan di indi loolu Seydina Aboubacar Seydina Aboubacar. Seydina Aboubacar Aboubacar Aboubacar hmm. waaw. Hmm. macha allah kii mooy. moom sama suñu suñu kii moo xaw a. yaa ngi ca fukk ak ñaar yooyu. waaw waaw <laughs> ilaha illallah. kon lépp lu waaye di wax vraiment bu pare waaw laa ilaha illallah di doon. ci nga ci nga wax tamit ci nga ñëwaat tamit nii taxawaayu laa ilaha illallah ci nit ki. taxawaayu laa ilaha illa ci nit ki mooy nga xam ni yow doo rey sa bopp yàlla moo lay rey bindoo sa bopp yàlla moo la bind booy yàlla moo lay dekkal bu nag yàlla ku ko neex la ko fay dugal amoo benn benn yëf boo xam amoo benn prétention boo xam ne moom nga war ci kanam yàlla amoo benn prétention parce que doo dara du dara xamul mënul amul yàlla rek moo xam moom moo xam donc war nga fexe ba lépp looy jëf nekk di war a di war a di war a tombeek euh, fukki fukki fukk ak ñaar arafu la ilaha illallah yi nga xam ni moom la Seydina Abu Bakr waxoon nga war ko jëfe mu nekk yow nga nekk jëmm laa ilaha illallah dox donc maa ngi jégalu baax nag sëriñ bi ci guddal bi nag waaye nag. <laughs> baax na baax na baax na. Ah, macha allah baax na. baax na ñun xamuñu li may wax lay toujours man leen. man xaw ma macha allah man lii man su ma man mi bëgg a noppalu may fexe ba li sëñ moo li sëñ moo def ma di ko def noonu la ndax am kilifa gu mat kilifa da ngay roy la muy def di ko def ndax boo ko royee roy nga Seydina Muhammad point final. man noonu lay doxee wala may wax rek waxu sëñ Mor la bu buñ ko demee gisaa ko ci waxtaanee nga waxtaan ak yàgg yooyu mi ngoog macha allah vraiment daal ñun dañ lay sant gën la gën la gën la di la ñaan yàlla yàlla gën laa gën laa dool taxawaay vraiment gën a guddal fan wi gën a defar lépp ndax ñun xamuñu avant ñu lay xam xamuñu woon ba léegi sax mi ngoog mais am na yu bëri yoo xam ni yaa ngi ciy dimbali macha allah donc mi ngoog yàlla nañu yàlla yàggal taxawaay bi yàlla na yàlla defar lépp ñu ko su ko defee nag suñu maam Alaaji Muhammad Njëgéen moom moom moom moom moom macha allah <laughs> donc euh, kilifa la goo xam ni euh, dañuy wax toujours nii koo xam ne ku jekku lépp tiim lépp jàkkaarloo lépp mën a tibb bu joxe wala mën a tibb wane boppam toog waxul dara man loolu moo tax mu mu mu mu yéem ma man loolu loolu rek wallahi ku tiim lépp mën lépp am lépp keroog rek la ma am benn mbokk bu ma doon bu ma doon ma doon nettali ni ma ni ma ni ma maamalaaj moo xam ne jigéen dafa am benn waay bu fa ñëwoon ni ko ah sëriñ bi man de dama li may benn ñaan rek laay ñaan mooy dama bëgg bis bu may ñëw fii su may ñëwaat fii déwén am ay taalibe fii ba mu fees ba kenn du xaj maama laa ji ne ko incha allah demal ba déwén maam waa ji dem déwén xaj daanaka xajuñu sax kër maama laa ji te ñamu àndal maama laa ji mbooloo ndax su nekkoon limit mbooloo kon la mu jox kooku ba kooku am ay junni junni junni taalibe kon su ko neexee moom mu def ko mais moom ba nit ñi ba ñëpp demee di wër mbooloo di wër alal di wër lépp moom daa wuti yàlla ñëpp ñi doon ut affaire yi ut kër ak ut ay affaire ak ñëpp bañ demee ba xam ne affaire du foofu bañ wàññee dañoo fekk ko moom jiit na leen def ci Seydina Muhammad def mu di moom tamit noonu def ca yàlla ba ñëpp demee di moom dafa dem ca yàlla toog fa rek moo tax la muy def mooy la yàlla di santaane moo tax mu am tamit alquran Mm-hmm. la taxawoon donc moom wutul dara wutul dara moom kilifa gu mat kilifa la ndax su nekkoon mi ngi boo gisee dundam boo gisee doxalee rek xam ni moom mi wallahi wutul dara te lépp fekk si na ko wallahi moo tax it képp ku demit teewul li nga fa barkeelu donc mooy kooku mooy alaaj Mouhamed Ndiéguène loolu nag benn facette la rek ci yëf <laughs> xam naa ni waaye nag ay ay affaire yu ma yu ma defee analyser ci xool xool di comme xool mais da ngay xam ni daal wallahi ah imam Buseyri wax rek wa mishid wa mishid al zuhur al xafaaw mu naan la proximité est un paravent loolu mooy waral ñu ba loolu mooy giir ñu bëri ñu naan ah kii de warta te kii warta mën a am lii déedéet fekk na yow li ngay wax toujours ni yàlla buy denc ci seen la koy denc yow nga romb naan dee mënta nekk mënta nekk nga gis koo xam ne day romb rek jël ko for daay dugg dem këram loolu nag ñun nag dañuy sant yàlla ba ñu yàlla ba ñu yàlla xamalee kuy Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène ba pare moom tamit éducation bi aussi dafay dafay reflété ci ñëpp dafay reflété ci mboolem taalibe yi parce que euh, bëgg ko ak sopp ko ak topp ko loolu c'est pas ton choix parce que euh, sa xam-xam àggul àggul bay dem foofu ñu jëlee décision yi. defee yàlla nañu yàlla dimbali su euh, ko defee ñu gën a profité daal ci yëf yi ndax ndax dafa am wax ju muy wax sëriñ benn woy muy jàppal jullil ruusal magit te bul di wor fonkal sa ndey te weg sa baay di def lu baax ci koo xamul bul xas oh. bul xeeb nit ciram bul xas sëriñ bul koy sosal foo mën ci dem na ngay saxal julli juróom te bul di wor hmm. loolu xam ni loolu résumé sëñ bi loolu résumé na àdduna ci jàppal julli bi rek sëñ bi jàngal nañ ci xam bi jàngal nañ ci loo xam ni loolu waxtaanu ay ay ay fukki fani burdu la waxtaan fukki fani façon jàpp bi am jàpp zahir jàpp baatin lépp loolu lépp ay waxtaan yu bari la kon nga xam ne mamalaaji ay waxam dépassé na fii dépassé na fii ay waxam wax ci bayit bii nii wax wax parfois da ngay di xalaat di xalaat di xalaat mais ci benn wax ji da ngay topp di xalaat di xalaat bu mujj yow da ngay sax sonn daal di jug dem beneen ñëw nga toppaat ci même wax ji di waxaat di waxaat di waxaat gars yi ñu ngi may dégg temps yëpp ma koy woy wallahi parce que fa ma yóbbu moo sori ndax dafa résumé àdduna te nit ñëpp bu ñu toppoon lii jàngale bi yu simple yi ni mu simple nii c'est très simple mais c'est trop profond profondeur bi sax gars yi mënuñu ko déceler bay mën a sax xam la puissance des paroles ndax loolu rek wallahi loolu xam naa du ñàkk tamit sëñ sëriñ man dama dama benn waxtaan benn bayit bu ne nga jëloon ci waxtaan defal ñu direct spécial ndax loolu sëñ bi mooy àddu waaye loolu dañ la koy ñaan rek suñu rasulilah du ñàkk loolu def sax ay séminaire nga xam ne da ngay toog expliqué ñu toog ñëpp jotaay wallahi mais nag étudier ko parce que loolu lu lu doy waar la sëñ ci jàppal jullit rek jàppal jullit rek wallahi loolu rek yeneen yox yi nag bul xam wallahi ci jàppal jullit laa nekkoon temps yëpp damay toog ñoom sëñ Baye Fall di waxtaan mais sama xel mi ngi ci jàppal jullit rek jàpp yi julli bi tout nga xam ni sëñ bi loolu wax bu doy waar la yàlla ñu yàlla dimbali. ma maa ngi maa ngi monopoliser parole bi nag waaye nag <laughs> mënu ma woon ñàkk wax <laughs> xam naa du ñàkk <laughs> ko xam naa du ñàkk te yeneen live yi di ñëw tamit ñu duggaat incha allah. waaw uh, ñoo ngi bu baax a a baax. incha ah, non non bu incha de cette de ce man mm-hmm. incha allah bu subaa dinañ euh, ci alxamis bi incha allah dinañ ñëwaat dinañ ubbiwaat waxtaan bi mm-hmm. su ko defee. ñeneen ñi bëggoon a dugg te mm-hmm. joon jéem a dugg ba tey te ñëw dugg bu subaa ñu mën a dugg euh, yow li nga wax dafa foor te dëgër te am solo am solo goo xamante ni man fii laa koy yemale ba suba incha allahu taala bu subaa ñu ñu ñëwaat suñ ñëwaatee euh, ñeneen ñi waxuloon mën a dugg participer soo leen ñëwaatee yàgg maam alaaj Diouf tamit dina gën a baax ndax yëkk yëkkatiwaat ngeen niveau débat bi incha allahu taala kon yal na yàlla fay la yiw fay yiw mbokk yëpp ñaan yàlla may ñu fanaanu jàmm may ñu xéwal yu bari sutura àdduna ak sutura àllaaxira teranga àdduna ak teranga àllaaxira may ñu mucc ak muccule may ñu tamit euh, mm-hmm. ñu doon kilifa te am sunuy kilifa te fonk leen yàlla sàmmal ñu suñuy kilifa zahiran wa baatinan bi jaay seydina wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah